mel ni mbokk yi daal wax dëgg yàlla ay ay ay lañ lool wax dëgg yàlla jànk jànkatu xes de ay jàmbaar lañ waaye borom rajo maa ngi koy wax sànq léegi doo takki ay rajo ba noppi euh, maanaam kaas kaasum kaasum reer mi sono gars yi ñu ne eh waaye sëñ bi ñun dañ laa fay ñun amee luñ la reer mm-hmm. waaw waaw <laughs> loolu mënta ñàkk ndax euh, maa ngi fàttali mais doo ko dugg ci métier mi mm-hmm. booba laa gën a nekk euh, tout tànk mus naa installé fële ca boori xayra mm-hmm. Euh, euh, bis bu fa amoon boo xam ne euh, dañ ko defoon ngir cérémonie rek nga mm-hmm. xam ne ay kilifaa ko doon def mm-hmm. fekk am am boo xam ne moom fa yóbbu woon yoruma tudd turam mm-hmm. ma demee installé leen ba noppi nag ñu ne fa ba waxtu cérémonie bi ñoom reer nañ ba noppi ba waxtu cérémonie ba ñu dugg si ñoom ba toog ñu dugg see ba toog ba ba kilifa yëpp dugg toog ñu daal di joxe micro central bi ba kii war a tàmbali programme bi ma daal fay rajo yi <laughs> nga defee nag nag ñu daal ne rajo rajo rajo ma toog na ci yàlla rek ñu daal di ñëw ci man daan ne ma sëñ bi taalal rajo yi man leen sëñ bi rajo yi balaa ma ko taal damay reer ba noppi <laughs> nga xam ne keroog daa mujj maanaam maanaam kilifa yi fa kenn ku ne daf mënoon woolaa di ma di ma kii <laughs> waaw di ree ci man naa bi am nga fu la kat dangaa réerut man ak affaire rajo ma ne waaw nga xam ne ma fi indi daa ree léegi ñetti junni léegi ne ma am demal nga jëndi reer <laughs> maaraay kenn mënut a ba cee xool ku ma xool rek waaw ma ñëw na ah am nga fu la ah, noo daa mu ne la sant ma ne ñëw ah sëñ bi de yow de loolu de kéemal la muy loo xam ne lu xool loo xam ne waaw ba loolu jaaree nag laa bàyyi yooyu yëpp nag mais <laughs> ne suñu ci waatam maa mm, ko naxarlu ci dara koy fàtte waaw waaw mu nga ko dañ koy fàtte waaw mm-hmm. mm, nekk faratu ñu jox ma ngoog waaw ma ngoog waaw ma ngoog ma ngoog dëgg la muy jaf muy benn jafe-jafe boo xam ne mm. dañ ko bàyyi xel mais jafe-jafe la mm-hmm. ndax it euh, nit. Mm-hmm. doog moom. Mm-hmm. bis bu sëñ Touba mu def ci yitteem yëpp. Mm-hmm. waaye ci jafe-jafe yi ma la wax ci wàllu bagage yi. waaw xam nañu ay jànkatu xes day nga yàndal te ñoom bu ñu sañsee ba nopp maa ngi ñoom a yem. waaw waaw dëgg la laal bagage. léeg-léeg nga am jafe-jafe boobu de naa. waaw comme bagage yi rajo yi wala yooyu. wàcce beeg ajaat beeg. waaw loolu nag moom loolu nag moom suñu borom daf ma ci dimbali ba. maanaam mosuma leen cee. comme di ci jëm ci ànd ci ànd ci ñoom waaw déedéet ndax euh, fu may dem fu nekk am na ko may àndal koo xam ne fu may egg moo may jàppale mooy wàccee bu yëgal jotee moo may jàppale mm. ñoom dama leen di bàyyi ci seen comportement ndax mm. tamit ñoom waaw loolu la ñu kii waaw mm. saay wax na loo am solo nag mm-hmm. muy ci première heure bi waaw deuxième heure xam bi doog a dikk moom xam ba xam yow sonn nga am nit waaa taxaw ba bëccëg l'officiel bi jeex mm-hmm. jàpp ne yaa ngi doog a waaw loolu loolu loolu mi ko suñu Ibrahima waxee noonu la noonu la mel. ndax rajo dafa métti. xam nga ki nga xam ne 6 heures nga commencé di installé. 6 heures nga yéeg a wàcc di yéeg ci kaw garab yi di takk. Mhm. di takk ka tekki courant bu faible nga dem fu fil daggee ngay monté. Mhm. ba pare ba teg son. Mhm. toog noppul diggante bi ngay nopp mën naa su matee 2 heures temps ci lay toll. nelaw doo ko def. léeg-léeg doo noppal nga amay jafe waaw léeg nga dem ba mu yàgg ampli am problème noppi nga say sa yow moom bi journée boobu sa lépp yàqu na. te ki war a jàng heure moom xamul ne kii. Mm. dafa am paan lii wala dafa am paan laa. déedéet moom lu sëkk ci rajo rek day jàpp ne. yaa ko saboté xëy na ki la fi indi moom bu egg see nga ko kat damaa paan nangam ak nangam waaw. ki nga xam ne moo war a jàng première bi doon dafa nga ko tamit du ko gëm day jàpp ne da jublu ngir yàqal ko waaw loolu yépp da ci am waaw mun see ñàkk tamit mm. ndax kuy ànd ak nit tamit mm. euh, donte xel yi waxu ko tamit. xol yi di ko xalaat. xol yi di ko xalaat waaw. waaw ah. loolu la. kon jànkatu xasida yi ñu koy xamee noonu léeg-léeg xam naa ne maanaam communication la doon mais boo waxee ñoom ñoom itam xëy na dinañ comprendre. waaw ma ko waxee sànq rek jànkatu xasida yëpp daal borom rajo yi ñooy seen doole. ndax man mi tey bu ma duggoon jàngu xasida moom daam ñang dong laa ci yaakaar wala jàng wala <laughs> wala borom rajo yi xam naa ne baat moom muy ma muy yëkkati ci kaw muy neex. waaw waaw dëgg la dëgg mhm. yàlla. di sant mboolem mbokk yi fi jaar yëpp nag xam naa ne euh, bu fekkee Basiru kenn nekkul ci ligne bi sëñ daam sant nañ la bu baax gërëm la ndax xam naa jot gi mayu la ko ndax ni ma ko waxee sànq sëñ Xaadim moom ku yor matériel am yàlla na sunu borom gën a wéral cër yi rek waaye ni ma la ko waxee jànkatu xasida bu dugg maa ngi lay ñaan jàng yu mu njëkk am te nga yor rajo yi rek nag moo nag moo ko defal bagage eh, loolu maa ko ñaan sëñ daam ginnaaw yow ne moom neen du ko def jànkati jànkati moom maa ngi ñoom maa ngi ñoom benn lañ ñoom ñëpp dañ maa jàppal seen bopp ah, dëgg yàlla ah. waaw ñoom ñëpp dañ maa jàppal seen bopp la ko commencé sëñ Ablaye Seck mm-hmm. ba ci ki ci mujj dugg mm-hmm. ñoom ñëpp su ma doon lim seen tour dama fi yàgg sëñ Mara moom gis la waaw sëñ Mara moom wax mm-hmm. dëgg yàlla suñu xarit la wax dëgg yàlla mu doon nit ku lewet ku baax koo xam ne moom tamit ku bëgg la ku yëg la waaw ñoo ngi koy sant moom it bu baax a baax a baax di profité di ziare sëñ ak sa Samb moom tamit nekk koo xam kenn la ci moom sëñ xarim Kébé sëñ Abdoulahad waaw sëñ Moustapha Seck buñ dee lim jàngkat yi daanaka lañuy matal waaw di ziare sëñ Cheikhouna Badiak sëñ Mamor Kéré mm-hmm. ñoom ñëpp bàyyiwuñ kenn ñoom ñu dañuy profité di leen ci ci ci kii bi ak ñi ñuy tudd mm-hmm. suñu xel ñi ngi ci ñoom di nuyu bu baax ñoom sëñ Cheikhouna ñoom ñëpp waaw ñoom sëñ bàyyiwuñ kenn Xaadim Kebe mm-hmm. ak mboolem jàngkatu xasida yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax comme ni ko sëñ Dame waxee rek ñoom ak ñoom benn dañ dafa mel ni am na ku ne ci biir sax ah kooku mbokk moom rëcc na kon mën na dellusiwaat euh, laata ñoo yëkkati jotaay bi. Mm-hmm. ndax sëñ daam xam naa ne xat na lool xam naa dañoo cëral rek moo tax mu fekk suñu waaye ah, xat na lool ñu ngi koy siyaare waat bu baax a baax di siyaare mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi ci waar wi TV mën ne am na mbokk mu ne ci biir parce que bu accès nga bàyyi ko mu ñëw. Mm-hmm. mbokk mi ci biir salaamaaleykum. kon mbokk moom mu génn di nuyu mm-hmm. mbooleem jànkatu xas day waaye sëñ daam bu ñu dikkee ji ah. beneen laaj bi sa dikkante communicateur traditionnel yi ndax gis nañu ne léeg-léeg jafe-jafe am ci wàllu sa diggante borom rajo yi. waaw communicateur traditionnel yi tamit wax dëgg yàlla bennoo lañu lañu lañu am ñoom ñoom. ndax ñoom tamit daanaka lay jàngkat ba daanaka mooy ñoom. mooy ñoom te ñoom tamit qualité son lañu bëgg. Mm-hmm. ñoom sëñ bu leer ñoom sëñ Sadda Niang. Mm-hmm. sëñ Modou Mbaye Ndiaye sëñ euh, Mbuub. Mm-hmm. Euh, sëñ. Euh, moo Mbaye Touba. Mhm. ñoom ñoom la séddal. waaw waaw waaw ñoom ñoom tamit ñu wax ñoom ñoom benn lañ. ñoom dinañ <laughs> ñoom ñoom kii si daal jëlee ñoom ñoom benn lañ. ndax tamit mm. ñoom tamit. Mm. Eh, eh, mbokk mi ci